tey ñu ngi nuyu waaye yéen a ci euh, tey nag euh, benn vidéo lañ liggéey di mooy naka ngay comme dañ ko bëgg a tënk rek mu gàtt euh, naka ngay couper ay kii maanaam naka ngay couper benn audio benn son ba diggante bu ma neexee exemple nga couper ci lu ma 2 minutes wala 2 secondes wala 4 secondes nga couper ko garde ko sa téléphone di ko déglu ak fi nga koy dugal ba muy répété wu nga xam ni su fekkee looy jàng la day yomb jàng ci yow. exemple boo dikkee fii nii mën nga def complet euh, hmm. bi bii boo cliquer ci Chrome comme man tey am naa ko pare daf may defal mettre à jour mais jërëgul mettre à jour su fekkee ne yow la dafay lay defal euh, installer wala télécharger soo paree nag euh, nga mën a accéder ci biir beneen bi nga chercher excusez bu ñuy wax euh, recoupeur de son rek euh, xëy na mu génn bi ma yëtewoo waaw très bien bi laa yëtewoo bii nii coupeur MP3 et fissionné nga cliqué ci kawam boo cliqué ci kawam bii moom téléchargé gu ma ko dama koy téléchargé léegi nii ma def installation bi léegi mën nañoo. léegi comme installé naa ko pare damay def ouvrir damay dugg ci biir su ma duggee ci biir ma def autorisé léegi nag génneel na ma son yi ma am gis nga son yaa ngi nii xam nga sëñ Abdourahmane mi ngi nii ndax ju bu njëkk bi mu ngi nii nekk euh, lan nekk 31 euh, minutes bii 31 minutes léegi. Euh, dama ko bëgg a dagg ba mu nekk ba mu nekk deux minutes ma gis nga ko deux minutes léegi ma cliquer mu wax ma ni ma ndax na koy sauvegarder ma dugg ci sauvegarde bi léegi lii ay eh, léegi mu laaj la ndax da nga ko essayé joué nga ni waaw billahi minash gis nga yow euh, ça dépend ci ni nga ko bëgg ni nga ko bëgg a dagge moo euh, bu la neexee voilà xaaral ma nga am naa 22 secondes maanaam fii mooy seconde yi am naa 22 secondes xam nga day xaar ma copiwaat ko <coughs> ndax da ngay jiyee. bismillahi وصلى على وسلم وسيد المرسلين محمد وآله وخديمه وأولين